xibaar yi mbokk yi bisimilah dal leen ak jàmm li ci gën a fës. taxawu askanu Saint-Louis ci wàllu mbalit mi nag ab ndaje la ñu si amal ngir wut si ay saafara ñu si liggéey nag di sàkku rek ay anam yu gën a jaax si yoon. fukki junni doomu aadama nag ñoo xiif ndax wàllu bekkoor agence yu musulman Afrique taxawu leen nag ci wàllu dund ñu génne enveloppe bu ëpp ñeenti téeméeri million ci sunu koppar. Eh, ca diwaanu ah, bitim réew ca réewum Éthiopie néewu Meles Zenawi nag moo fa yegg si eh, seen premier ministre nag moo faatu altine ca Bruxelles réew ma nekk ci njàqare jamono ji mbokk yi bisimilah ñu leen baal àq di sàkku ci tam ngeen ñuy baal àq yàlla nañu yàlla boole jégal suñu ay bàkkaar nangu ñu suñu koor nag te rek daañuy rek may jàmm ak salaam alaaji ma di la baalu àq. may baal àq sàmm di la baalu àq yow yal nañu yàlla boole baal. maa ngi lay nuyu ci euh, xibaar yi. Eh, ci xibaar yi ñaareelu xaaj bi lay doon ak li nga xam ne moo gën a fës si ëpp yéenekaay yi politique euh, société économie ak wàllu tàggat yaram lay doon. ci kanam lay doon kon incha allah. incha allah. xibaar yi eh, ñaar fukki eh, parti ak coalition de parti ñoo nag déposé ni nag démb la woon kon seen liste ngir eh, ñeen fukki poste sénateur ak juróom yi war a nag teewal département yu réew ma Sénégal liste yi nag la ñu clôturé démb ca makkaanu ministère de l' intérieur ñu bindu fa nag ci teewaayu ndawal commission bi ëmb rek waa intérieur ak ndawal waa Sénat démb lépp moo fa jaaroon yoon ci kàdduk Macoumba Koumé nag mi wax rek kon jamono ji kon ci écran bi ñu war ko nag amal ci fukki fan ak benn bi ñu daal di dëgmal liste candidat yi nag ci élection këru Sénat mu indi ab coow ci lang njiitu réew mii ne ñu nag Macky Sall ni mu sëddalee moo rek daal di nag teeloo xel waa Benno Bokk Yaakaar Macky moo jël rek nañu fanweeri département ak ay jox ko nag ay alliés war nag kon xaaju rek juróom ñett yi fa daal di des kon ne ñu ñas jox partem waaye ay alliés la daal di séddale nag waa PS na maamal ab bureau politique ginnaaw ab bañan nag fas yéene déposé kon lu ñu wax rek ab liste parallèle la. xibaar ci gàttal njiital réew réewum Nigéria ko Jonathan nag di amal rek visite kon fii ci réew réewum Sénégal te ci ba ji nag mu war a ak njiitu réew mi Macky Sall nag mu di ab xibaar bu fas kon ci ab communiqué bu bàyyi ko rek ci Abou Abel Thiam yor baatu njiitu réew mi di Macky Sall. xibaar yi ca diwaanu Saint-Louis foofu nag mbalit mi moo fay daal di lëmbee nag moo fës kon ci ay gox yu bëri rek diwaanu euh, Ndar euh, géej nag lu ñu mel tax rek ñu si yëngu amal ab ndaje nag ngir rek amal nag weccee xalaat ak seeni ay njiit rek ngir nag seen anamu liggéey gën a rek euh, daal di yéwén ci diwaanu Saint-Louis musa Ousmane Diagne Abdou Boya. gis fi nga xamee ni moom moo di ci commune bu Saint-Louis tax na nag ay nit yi nga xamee ni dañuy yëngu nag ci wàllu anut mbalit bi ñu jox leen nag ay GIE tudde leen ko setoo ma ñoom nag ñoo doon amal ab bëccëgub waxtaan sottante xalaat naka lu ñu fexe ba li nga xamee ni rek moom moo di mbalit mi nekk fii ci Ndar nga xamee ni bare na lool ay jafe-jafe ñu xool naka lañ koy saafara ci fi nga xamee ni moo di ci faubourg bu Soor ak tamit ci Langue de Barbarie. tey bu ñuy xool tey dañuy xool lan mooy gàllankoor. liggéeyu GIE Setom yi liggéeyu GIE Setom yi nag dafa am lu nga xam ne tey mën na ni loolu rek mooy indi gàllankoor bi gàllankoor bi mooy lépp li nga xam ne tey mooy li nga xam ne mooy dem ci fonctionnement wu GIE Setom yi tey bu ñu xoolee xam ne tey dara mënu fi dox te amul fonctionnement mais le problème en est tey mën na nañu xool ni GIE Setom yi ñu ngi souffrir ci benn dysfonctionnement mooy dysfonctionnement boobu moom mooy li nga xam ne tey moom mooy soqaliwaat GIE Satom yi mooy li nga xam ne moom mooy jóge si mairie bi di ñëw si GIE Satom yi muy la subvention municipale. maire bi dana ko def ni mu ko war a defee mais tey dafay am blocage au niveau du payeur municipal tey payeur municipal boobu tey mën na xool ni GIE Satom yi dañu fay am quatre subventions ba jëm cinq subventions ñu jox leen benn subvention tey. loolu dafay nasaxal li nga xam ne moom la ñuy liggéey looloo tax tey au sortir ñuy def atelier bi pour xool fan la manquement yooyu nekk te manquement yi xam nañ ko teg nañ suñu baaraam mais aussi tamit mu mel ne autorités yi nga xam ne tey à part Cheikh Bamba Dièye dañu nekk dans cette ville di liggéey. Cheikh Bamba Dieye bàyyi leen fii dafa mel na ñoom tamit dañu xaw a néewal néewal doole GIE Setom di fàttali nag ni GIE Setom yi nga xamee ni nag ñoom la ñu samp boobaak léegi mu toll nag ci ñaar fukki at ak lu teg gis nañ ni ñoom dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàlluk ànduk mbalit bi ba tax na nag gannaaw bañ leen dégloo ñu ci bëri sax nee nañu daal liggéey bi ñuy def nii amulu sax ay jumtuwaay yu matt rawatina nag ñàkkub salaire bu métti jaajëf Moussa Ousmane Diagne ginaaw Saint-Louis ndar géej na ci diwaanu Ziguinchor la ñu jëm foofu nag kuréelu musulman yu Afrique ñoo fa taxaw nag ñu loolu kon ci wàllu bekkoor ñu ne nag ñeenti téeméeri million ak juróom ñetti fukk rek ngir nag jëbal leen foofu ay dund fukki junne nag doomu aadama rek kon fa daal di nag am ay gàllankoor ci wàllu lekk gi boobu nag programme la ñu fësal ci tebaayu njiit yu Ziguinchor Cheikh Tidiane Cissé Kaba jaaxaloon nañu lool askan wi nga xam ne ñu ngi bawoo ci fukki quartier ak juróom-ñett yi nekk ci commune bu Ziguinchor dem fi nga xam ne mooy centre socio-éducatif bu agence des musulmans d'Afrique bi nekk ci ngir jot li nga xam ne moom mooy ay ndimbal yi ñu baaxee daw làqu yi ak ñi nga xam ne ñoom la ndóol dal lool. bii programme la boo xam ni. leen mel ni suukar lu mel ni duulin lu mel ni ak euh, ñebbe lañ leen di jox pour mën leen a dimbale ñu ko jagleel it nit ñoo xam ni wax dëgg yàlla ay néew doole la fii ci Ziguinchor. tànneefu Ziguinchor ngir lancer li nga xam mooy programme national bi ñu tuddee secours alimentaire bi ama amal mën nañoo jàpp ne lu dëggu la teyit coût bi mu ngi toll ci ñeenti téeméeri million ak ñeent fukk ci suñu koppar ci kanamu autorité yi. waaw lu tax ñu tànn Ziguinchor bokk na ci siège u siège u ama fii ci Sénégal Ziguinchor la nekk beneen bi xam ngeen ni Ziguinchor euh, ak. xew-xew yi ñu xam ci dëkk bi wax dëgg yàlla am na ñoo xam ni jóge nañu ci yeneen dëkk ak ñu ñuy tudd ay déplacé ñëw nañu fii donc loolu yëpp tax na Ziguinchor mu nekk gox boo xam ni yeyoo na ndimbal lool lool mais incha allah nañu Ziguinchor dem ci yeneen gox yi mu mel ni Bignona Oussouye euh, Sédhiou beeg ko ki euh, Goudomp yëpp incha allah dinañ fa jaar. kon lu war a toll ci fukki junni nit mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jot ci ndimbalu ama boobu ñu jàppoon rek ku ci nekk di nga jot ceeb diwlin suukar meew ak ñebbe valeur bi toll ci juróomi junni nekk juróom benn téeméer nit ku nekk mun noonu nag ndimbal bi nga xam ne dina wàññi lool tolof tolof ci askan wi. jaajëf Cheikh Tidiane Cissé xibaar ci gàttal ministre affaires étrangères maître Alioune Badara Cissé dina ubbi ëllëg nag alxames ginnaaw nag fukki waxtu ci suba bureau bu pèlerinage aji Màkka moo fa nag amal nañu rek ab visite guidée mujj nag ab jéego ci waajtaayu aji Màkka buy war a nag kon am ci weeru octobre bi ñu daal di dëgmal nag visite boobu nag médical bi yi war a am at mi nañu ca pavillon tertiaire bu CICES. ñu àddu ci wàllu ñàkkum kaaraange nag gi rek kon ci Ndakaaru kon rawatina nag fii ci capital bi rek dafay gën di jéggi dayo démb ayëpp waaye nag la ñu faat bakkanam ca point E ginnaaw nag agression jamati ko rek paaka ba mu daal di mujjee rek ñàkk bakkanam mu fekk fi nag faatu ki ñu wax du Ndiaye ci pont Sénégal 92 ca diwaanu Padoua ginnaaw kon ay jëfu agresseur maam ja wax Diallo ak Cheikh Diaby ñi ñi nekk ci HLM Grand Yoff nelawatuñu ba yandoor lu ko waral moom moo di banditisme bi nga xam ne nag jéggi na dayo foofu bañ ne suba la korité lañ fa jot a faat kenn rey ko reyn bu ñaaw bërëb bi nga xam ne nag fa lañ defee ñaawteef bi boo fa rombee ba léegi deret baa ngi foofu lii nag doon it beneen musiba baaba kumba boo xam ne dalaat na ci kaw askanu HLM Grand Yoff amul benn kaaraange nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg nelawatuñu benn fii yoor yoor sax ak diggu bëccëg sax soo xefee ñu ñu nangu sa saak mbaa ñu def la lu mbon ndax mhm. man mii di wax ak yow mhm. sama belle-sœur sama caatu jëkkër mhm. seen caat jëkkëram bërki dem boo njaay même pas de mois lañ ko agressé fii ñu taxaw nii gis mu yor cartable te ay vers euh, onze heures jàpp onze heures demi dox yi ñëw ñu gis cartable bi foog ne xam naa alal bu dul jeex la jaasi lañ ko dóor heureusement yàlla bañ loxo ba daggul mais dagg na dagg goo xam ne dañ ko mujjee ñaw duñ na guleet am na fi amaat fi amaat fi amaat fi bu ñuy lem dañuy dañuy juum donc euh, problème insécurité moom ci Grand Yoff euh, Grand Yoff dans sa globalité c'est-à-dire depuis le village en passant par les cités donc euh, kooku vraiment dugguleet ci événement yu demee noonu y a pas plus de deux mois amoon na benn xale bu ñu rey booru boobu booru Pérango. bi nag tax na ba kàddu yu bëri jóg ba ñenn ñi daal ñu ne fu mu toll nii faaw ñu xool naka la ñu war a mën a def ba dindi fi nag li nga xamante ne moo di caay-caay bi am foofu tey tax ba ñu ci bëri di ñàkk seen bakkan. solution bi boo ko loo solution bi euh, global li problème yi ni mu posé wu ci réew yëpp noonu la posé wu fii nit ñi ak état bi ñoo ko war a taxaw parce que réew mi nag bu nit ñi jàpp lépp ne état moo ko war a def. am na loo xam ne population yi seen bopp ñoo war a taxaw lijjantil ko seen bopp. ñu ñun aussi parent yi ñoo war a jëkk jiitu ca loola ah booy béy ci sa waaru tànk day tax xale yi conscient boo ko boo ko junjee ci loo xamante ne bi baaxul dindi ko ca dindi ko ci lu baax dindi ko ci sàngara dindi ko ci yàmba vraiment waxuma la tox bi sax mais jaay bi ci biir cité bi fii yëpp foofu tourné dañ naan la bërëb sàngam dañ ko fay jaay xale yi xam nañ ko donc ravitaillement du problème ci ñoom donc loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu bu baax te état bi xam na ci lu ci bare. fu mu toll nii nag ci waxtu ñax ñaxtu lañ toll askan bi mu ngi yaakaar ne fii ak fan yi néew lii nga xam ne moo di nguur gi dana fi indi ay solution ndax ñi mun a dundaat ci jàmm. jërëjëf Cheikh Diar bi ci dimbalu di Mame Diawar Diallo tey nag ci fajar Ndakaaru xëy euh, taw nag ndox mu bari mu am na yenn ci ay gàllankoor ndox bu demee ko ñu fees tam ca banlieue bu Ndakaaru ñu fa yeewoo am ay euh, coono nag ci wàllu dund kon rawatina ci euh, feetu korté bi ñu daal di weesu Ndeye Aram Touré Cheikh Atab Jeme. lu ci ëpp ba su góor ñi dañuy dem juma jigéen ñi des ca kër ga di togg. famille Dieng niki yu bëri yu nekk ginnaaw ray noor am nañu luñ ci soppi ndax ndoxu taw mi nekk seen biir kër fii daji awlante ci ndox mi ci perong bi ngir am fu ñu toog borom kër gi ne lu ni mel tax mënul dem juma. yaa ma fekk may ngacc ñu ngi nii amu mënuma mënuma dem julli ji waa kër gaa ngi nii amuñu fu ñu toog booy julli da ngay set ndax danga nga war a sangu jàpp julli te xam nga ne mii ndox kenn du jàpp julli xuus ci dem di julli ji. loolu gannaaw yàlla ak yonent ba maa ngi koy jégul tey ñaan yàlla euh, balaa ki yàlla jëlee ci lii. gannaaw julli gi ab dëkkandoo mu niiru ñëw na ko ziar li ñu waxtaanee doon na wàllu mbënd mi. ndox mi dafa bari dafa bari dafa bari seen dafa yàq. xol nekkul ci fet sax waaye ngir bëgg seen doom kontaan tax ñu jënd benn ginaar ak ay soblek pomme de terre yu ni mel. maa ngi nii waaye li may yëpp dara neexuma ndaxte lii dafa metti ngay dundu si si ndox dafa metti trop nii nii xam nga ni ku ne soo sañoon sa kër lu mel nii. xale yee tax rek ñu koy def waaye lii neexul mën naa laa wax ne la maa ngi togg nii mais ci xol bi naqari da depuis 2005 nag ba léegi nag maa ngi dund lii. Ndiira Sarr dafa mujjee rawale ay doomam ndax ndoxu taw mi ñu wéetal ko loolu. waaye càttam bu jigéen bi des ci moom di fexe mu fàtte loolu. daanaka ñi fi nekk julli jiw ñeneen ñi ci des ñi xaj ñu ndaw ñi. dama leen a yóbbu Bambey ci sama yaay ndax ndox mi moo tax. korite bi taloo taal cuuraay taloo lal dara bu baax taloo sol mbubb bu baax taloo sol dàll bu baax ndax ndox mi nekk ci ndox mi. borom kër gi am mettit lool di gis waa këram di dund ci ndox mi mënu ci dara gaa waaye mi ngi fexe jàppale leen ci seen nekkin. xanaa deme ko feet gu doy waar rek metti na lool lool lool lool lool ah, ndox maa ngi nii amuñu fu ñu taal gis nga duus beeg yépp fees na dell fi ne fa jaaxle yam dañ faa commencé jëm kaw. fii ci ginnaaw raay noo ndox mi day faral di ball. tax mu niiru ak njabootam dañuy yendoo ngàcc ndox moom lu ñu day dugg si day ball ndax day dugg si néegi sinon néegi yépp a yàqu lal yi ak yére yëpp ñoo yàq suñu suñu suñu ndox bi gis ngeen fii ni mel. saa yoo noppee nga ci rek mu ball bis bi tey fexee di di di ngacc di am fu nu toogandi bu muy kii ñuy ngacc ba baa ba baa journée bi jàll. Ndira Sarr ne kilifa yi war nañ leen taxaw ndax sonn nañu te fi ñu dëkk feebar yu bëri mën na leen dal. ku ñu jàppale woon ba ndox mi am yoon wu mu mën a demee ba du fi taaju di fi taxaw ba di fi ball ba di nu dana baax trop. korité mooy fësal ni jeex na ci jullit yi su fekkee ni ñu bëri ci doomi réew mi seen dund day wéy di jaar yoon ñeneen jafe-jafe kese la ñuy dëkkee ndax ñu ngi dëkk ci biir ndox mi. lu xaaju xibaar yi kon ci wàllu lu gën a fës yéen kaay yi ñu wàccee nag ànd ak Mody Gueye di tàmbale ak mbirum politique. ak journal bi nga xam ne moo di Le Soleil Samba mi ñëwaat ci li nga xam ne moo di élection sénatoriale yi fas yéene am fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre gi. ñu ne toll nañ ci ñaar fukki liste yoo xam ne dému déposé nañ seen candidature fële ca dal waaye jëruñ di ñu dénk biir réew mi ministère de l' intérieur ci teewaay ki nga xam ne la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu élection ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñoo fa teewaloon waa Sénaga bokk na ci list yoo ñu ne waa Benno Bokk Yaakaar bokk bokk gis-gis ña nga fa woon Union centriste bi nga xam ne Abdoulaye Baldé moo ko jiitee ma nga fa woon bu Djibo Leyti Ka PSD jant gi bokkoon na ci PCC bu mbay Jacques Diop ak yeneen liste yoo xam ne ne toll nañ ci ñaar fukk comme nañ ko waxee ca bopp ba te PS authentique ci la daal di bokk dépôt liste yooyu beneen journal boo xam ne wax na ci mu di le populaire mu ñuy xamal ne kat ñi nga xam ne ñoo di waa benn Bokk Yaakaar dafa am wuute ci li nga xam ne moo di dépôt liste yooyu rawatina seen candidature yi nga xam ne moo nekk fii ci Ndakaaru ndax gars yi déggawuñ ci ba tax Bamba Fall nekk kenn si ñoom daal di fipp ci biir yéenekaay bi wax lan mooy ay dëggam ci ni gars yi doxalee yooyu liste mu ne kat gars yi li ñu def yoon Bamba Fall nag soo ko bëggee xam mooy responsable jeune socialiste bu département bu Dakar waaye parti ga mu bokk di parti socialiste na ñoom yéeguñu ñuy wax jooju jógewul seen parti leneen loo xam ni fees na ci biir yéenekaay bi bay at ba léegi aju ci biir Sénat gi moo di kat coow li fi gaa yi yëkkati ndax dañ ko fee war a jëlee am déet gaa yi nag coow laa ngi gëy di wéy ci géew politique bi ndax bu si amee ñu ci ànd am na ñoo xam ne daal wuñ ci ànd bokk na ci Ibrahima seen mi ne kat Sénat gi niñ koy doxalee fiir Sénégal ak ñañ fa fas yéene tabbu am na si ñoo xam ne nii dëppoo wala li nga xam ne moo di charte yi tënk M23 Massaer Diallo nekk kenn koo xam ne ci ëttu politique bi la bokk mu ne kat njiitum réew mi amul genn sañ-sañ goo xam ni dina ko tax mu daal di fiy jëlee Sénat su fekkee tamit am na ay yoon yoo xam ni mën na faa daal di jaar le quotidien wàllum députation wàllum sénatorial yooyu ci la daal di wax it mu ne fi mu nekk coow moo daal di juddu ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax kat oh, wuutee am na ci kan moo war a jiite boobu chambre ñu ne nag fi mu nekk gars yi waxtaan yu métti la ñu daal di seq seq seen biir waaye nag xëccoo am na ci diggante PS ak ki nga xam ne moo di AFP présidence ga gars yi ñu ne Tanor mu ngi koy négocier suuf waaye tamit Idrissa Seck da koo bëgg su fekkee ne tamit ba léegi fësalul kàddoom sama naataango bi li muy xamale moo di kat diggante Idi ak Tanor la gars yi xalaat xalaat kan lañ ko ci war a jébbal Tanor ne moom affaire étrangère gi ko gars yi bëggoon a jox daf koo bañ ndax moom fi mu nekk Sénat gi rek ko na ñor ba tax gars lépp la si biir Benno Bokk Yaakaar ñu daal di koy bloqué l'observateur ci loolu la wax tamit mu ne Macky ni mu séddalee moo daal di indi coow ci biir yi lépp moo fa daal di teg loxo ay ñi nga xam ne la àndal mu jox leen leen lu du 8 yi nga xam ne moo dees ñes tamit ci séddale ga dafa daal di pay parti gi mu bokk di AFP daal di jox ñi mu lëkkalool xam ne ñoo ko doon jàppale ci biir Benno Bokk Gis-Gis benn Bokk Yaakaar ci biir parti socialiste ñu ne nag bureau politique ga daal nañ koy wootee ci lu mu gën a gaawee ngir kër xool coow loolu nga xam ne naka lañ ko mën a résoudre seen biir waaye nag am na ñoo xam ne jubawuñ sa biir ba tax ñu génn defar seen liste boo xam ni dafa parallèle ak liste bu Benno Bokk Yaakaar leneen loo xam ne ci loolu daal nañ koy wax ci biir journal moo di mbiram Arona Sy mooy ki fi nekkoon commissaire bu central dañ ko waroon yóbbu fële ca Darfour ngir mu amul fa ab waaye nag ONU da ko daal di dakkal ndax coow loo xam ne ni la judd na ci Sénégal Sénégal na faatu étudiant bi di Mamadou Diop ñi nga xam ne ñooy sàmmanteeg àq ak yelleefu bii si biir Sénégal ñoo ko daal di woon clamé lii moo tax waa ONU ne ko mun a goo dem fii ak mbir yi daal di wut leer leneen loo xam ne journal daal na koy fés beneen journal daal na koy fésal mu di l'enquête yéeni kaay lim ñu xamale moo di ñeenti weer ginnaaw bi ñu tabbee ki nga xam ne moo di Abdoul Mbaye ilimaanu jëwrin yi euh, fi mu nekk nag coow mu ngi wéy diggante ak ki nga xam ne moo di Macky Sall ndax fi mu nekk sama gars yi du ñu laale su fekkee ne nekk na loo xam ni fésul fésal nañ ko ci kaw ba ni ñu mën koo gis ñu ne fi mu nekk équation mag ak équation Abdoul Mbaye la Macky Sall mënta résoudre ndax kat da koy gêné ci ni muy doxalee coow la nag journal bi lim ñu xamal moo di mu nga juddoo ca banque Cheikh Tidiane Bougane Mbaye daal di tekkee ndomba tànkam fële ca bopp conseil d'administration bu Sénélec ba noppi topp teg ndomba tànkam fële ca Sonatel ñu leen lii lépp nekk na loo xam ne indi na aw wute seen diggante ba tax soo sàgganul fan yi di ñëw dina ko fa daal di jëlee waaye nag li ko ci jaaxal moo di buggul def comme ni Ablaye Wade doon doxalee ñeenti weer yu nekk nga daal di changé ab premier ministre leneen loo xam ne journal bi leer na ko moo di kat li ne moo di coppante ci wàllu bi moom dina am ci fan yi seen poste journal li xew ne ko li ko waral nag du lenn lu ndax nguur gi kat fi mu nekk moom mel ni gumba guy làmbatu ndax ñeenti weer bi ñu toggee ci bopp réew mi ak ba léegi sama gars yi xamuñ lu ñuy def xamuñ fan lañ war a teg seen tànk am na ministre conseil yoo xam ne seen biir nee nañ mënuñoo yegg ca palais ba mënuñoo jot ci Macky Sall ba tax ñu ne fi mu nekk boo sàgganul dinañ tekki seen dom ba tànk Arouna Dia nekk koo xam ne jege ñaale Macky Sall ñu ne moo ko doon jàppale ci campagne ñu ne mooy buum mooy buumi ci nguurug Sénégal ndax kat képp koo xam am nga sa CV ci génn génn ci biir ñu ne ndax Macky Sall nekkul président boo xam ni fantôme la maanaam président ci tur rek euh, li ko waral nag journal bi daal di ci def ay jàngat yaatu ci biir xëtu yéenekaay yi soo ko ubbee ko ci daal di gis sàmba wàllu politique la ñuy daal di daanale ak journal bi nga xam ne moo di le pays mu ne nag pays bi moom li ñu ci jar a wax moo di Macky sàll mook njabootam rek lay daal di fal mu ne boo nekkul goroom nekkoo ko sës ci moom amoo chance bokk li nga xam ne moo di ci pouvoir bi journal bi di le pays lim ci xamale ci biir moo di kat enquête gu yàpp la daal di def ci biir mu li mu ko tuddee moo di Macky Family ci benn noo Bokk Yaakaar. ginnaaw euh, politique mbirum euh, société ak wàllu économie koom-koom. wàllum société laa ko doore ak journal bi nga xam ne moo di le pays mooy gi ma daanele ak lu doy waar loo xam ne mu am fële ca Kër Massar benn waa joo xam ne nii da doon tëddee ay doomam yemul ci kenn rek waaye ñetti doomam yem yor yëpp la doon tëddee waaye nag mu ngi wuyoo ñange. xam naa nag nekkul nationalité sénégalaise waaye nag doom ji nga xam ne moo mag fi mu nekk dafa am doom doom jooju am juróom-ñetti at maanaam mooy baay ja mooy maam ja ca rakk ja lañ ko fekk nag ay bés bi ñu génn ñu daal di koy teg loxo ba tax xale ba nga xam ne fukki at la amoon nekk jigéen ndaw génn kër ga ñu ne jamono gi ñuy wax ak mu ngi ci loxoy procureur keneen koo xam ne mu ngi ci loxoy procureur Mouhamed Seck la tu yoo wuyoo nekk ab agresseur boo xam ne ni lay moo rayoon ay bés bi ñu génn maanaam démb euh, fële ca point E benn waay ñu ne nag ay paaka la ko jamatee ba mu dee bi ñu ko laajee nag lan moo waral nga def jëfin du ñaaw jii mu ne kat kii da doon jéem a sàkk koo xam ni ku ma jege la lii moo waral ma daal koy faat ñu ne waajur ñu faat la tribune ñaar fukki at ak ñett la ay atam daal di toll bu lii nag nekk 72 heures yoo xam ne ñaari doomu aadama daal dinañuy ñàkk seen bakkan ci Sénégal mu ne rawatina fii ci capitale bi mu wane ñàkku kaaraange mu ngi ci biir réew mi journal libération moom li mu leen loo xam ne daal na koy indi moo de ñi nga xam ne dañ daan jëlee di leen yóbbu fële ca Libi di leen jaay mu ne jigéen ñooñu naka lañ moo de weer nekk 80 000 francs lañ doon fayeeku si ñoom li leen loo xam ni fës na ci bopp moo de ne la ñuy jox dongo yi nekk ci daara ci kaw ji de Cheikh Anta Diop mu ne sama gars yi kat ñoo xam ni nekkuñ ay étudiants mën nag lii jur na ak njuuj njaaj goo xam ne ni bañ ko xaymaa toll na ci ñaari milliards ci suñu koppar mu ne nag ki feeñaloon lii moo di ki fi nekkoon jëriñ ju ñu dénkoon lépp lu yor ci wàllu koppar ci bureau mi di Abdoulaye Diop ba tax ab l'enquête daal nañ ko ciy tijji feneen foo xam ni l'enquête daal dina ko fay tijji Sud Quotidien moo ñu ko wax mu ne kat audit yi nga xam ne dañ ko fi amaloon te nguurug Abdoulaye Wade bàyyi ko foon ci atum 2008 mu ne nguurug Macky Sall dina ko wéyal li ko waral moo di kat imaam yi si julli korte gi ñu ne ko Macky fi nga teg sa tànk baax na bu ko teggi bu ko teggee ñu jeexale ak wàllu sport. wàllu sport dañ koy doore ak li nga xam ne moo di football match Sénégal Côte d'Ivoire juróom-ñetti fan ci weeru septembre gi lay am sunu gaynde yi dinañ amal regroupement fii ci Sénégal waaye nee nañ kenn du ko teewee ndax sama gaay kat ci ban kër la ñuy daal di dugg ndax kat bëgguñ kenn koo xam di leen déranger ci seen préparation boobu camp ca war a dajal di Côte d'Ivoire ñu ne nag fi mu nekk dañoo nekk ci croisée des des des chemins. ndax kat équipe ga dafa daje xale yi daal di fël mag ñi tamit màgget waaye dem terewul ñu daal di am seen place ci biir équipe ba daal di daanelee ak li nga xam ne moo di làmb ak sunu làmb mi ñuy wax ki nga xam ne moo di écurie caaro yi gëm sa bopp ñeenti defeet benn victoire ñu ne Baye Mandione fi mu nekk bokk na ci bëri yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu daanu ci biir arène bi ay kàddu guy gi ci biir yéenekaay bi daal ko ci fekk mu ne sama combat ak Ama moo nekk combat bi dàq ci année bi waaye tamit ndam loolu ba ma ko ci amee bokk na ci li yëkkati ma daal bokk ci cour des grands ma ñoon nag leneen lu mu xamalee moo ne ba mu nekkee xale ku dëgër bopp la woon ma ne ko wutewoo ak Samba Ardoba leneen loo xam ni fës na ci biir yéenekaay bi moo ne kat cachet xam ne moom lañu fësal ci arène bi promoteur yi ne nañ 75 millions la Balla Gaye Modou Lo Yékini journal bi samp laaj ndax sama gars yi dañ nangoo takkaat seen ngemb xanaa ñu seet si cànd moom ku jox 1 million mu sëgg waaye man dama lay baal waaw da nga war. non koor jeex na yow. kon ma ne la lan bon a <laughs> koor gi jeex na ba déwén. jaajëf euh, Mody Gueye yeneen jotaayu xibaar 19h Alaaji Mody Gueye lay doon kon 20h ak Cheikh Diaby yaa ngeen jëf ci seen teewlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jàmm ak jàmm.